DGE ñu joxe euh, fiche yi donc war nañ ko mën a jox Ousmane ko étant donné que am na deux cent et quelques personnes voilà donc Ayib woo nañ ko alors Ayib woo nañ ko dafa mel ni euh, cette fois ci euh, Ayib dina dugg beneen kii bi chef bi woo na ko wala ñu ngi nekk nii di nuyonte di safonte ñu xool lekk fan la mbir mi di mujjee gis nañu ne woowaat nañ ko moom Ayib Daffé Euh, moom ngeen di gis noonu muy waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy euh, agent bu mag bi euh, gis nañ ko noonu mu ngi neewnu di expliquer ki nga xam ne moom mooy seen chef peut-être fii actuellement mu ngi nekk di expliquente ak moom ñu ñu taaxiru rek xool cette fois si est-ce que dina mën a dugg gis ngeen ko noonu moom mooy nekk di expliquer document bi nga xam ne moom la yore ci loxom en tout cas Euh, topp leen live bi rek di ngeen xam fan la ayib di mujjee incha allah ñu jaajëfal internet yi nga xamante ni depuis sànq ba tey ñu ñuy topp ci live bi di leen wax bu leen fàtte abone ngeen di tapote live bi bu ko defee rek euh, ñëpp mën a dugg suivre Sunugal 24 ak li nga xamante ni moom moo xew euh, fii ci direction général des élections donc gis ngeen noonu ayib mu ànd ak ki nga xam ne moom mooy huissier bi. Euh, ginnaaw ba nga xam ne sànq ñëw na euh, permettre ñu ko mu dugg waaye gis nañ ne euh, bi mu waxtaanee ki nga xam ne moom mooy policier bi daal di na koy demander mu taxaw patienter le temps que moom aussi mu def liggéeyam def na liggéeyam ba si yàgg après ñu gis ne ñëwaat na woowaat Ayib dafe donc Ayib mu ngi noonu taxaw ba tey ak policier yi ñuy patienter rek di xaarandi ba xam ñoom ñaar kan moo ciy dugg muy moom. wala huissier bi kan moo si mën a am accès ngir rek mën a dem ci biir gisante ki nga xamante ni moom mooy direction moom mooy directeur bi di moins peut-être dina mën a recevoir di nga xam ne moom mooy euh, yooyu les fiches de parrainage. voilà dafa mel ni Ayib set fois ci mi ngi dugg voilà Ayib dugg na ah cette fois ci Ayib dafay dugg na ah ah dafa mel ni euh, dafa mel ni tey cette fois ci dafa mel ni tey cette fois ci yaa ah, ay dugg na de. ah dugg na kay ah kon gars yi ñoo ko bàyyi. wala ñu bàyyi ñu xool lan la fay jëlee. incha allah moom kese moo dugg. demal indi ndox nga ñëw ñu naan demal indi ndox acca euh, gis ngeen ko noonu Ayib Daffé eh, eh, dugg na fi nga xam ne moom mooy euh, DGE euh, délégation bi ñu ngi patienté ci biti di ko xaar muy may a Maymouna Bousso gis nañu ki nga xam ne moom mooy aussi Dame Euh, gis nañu aussi yeneen euh, ñetti nit yoo xamante ni ñoom aussi euh, ñëw nañu ngir rek apporter seen soutien ki nga xamante ne moom mooy. Ousmane Sonko ñu patienté rek xaar Ayib Daffé mu génn xëy na bu génnee dina def dina joxe li nga xamante ne moom mooy euh, def dina def déclaration am wax lan la jëlee ci biir bu fekkee jox nañ ko parrainage aussi Ayib dina ko wax buñ ko joxulee parrainage aussi dina ko wax mais en tout cas lu mënti am rek yéen topp leen live bi ndaxte fin bi euh, kenn waru leen ko nettali ndaxte nag comme niñ fi wax niñ leen ko waxee depuis le début euh, yéen askan wi yéen lañ fi nekkal et bëgg nañ à chaque fois lépp lu am ngeen koy mën a jot en temps réel